mbooloo mu tàkku jóge ci bërëb yu fasantikoo ñu ñëw démb fële ci résidence Seexul Xadim ngir teewe li nga xamee ni moo di njàngum xasaay di loolee nag gannaaw ba sëriñ Muntaxa woote loolee ñu dippee vivification maanaam màggal lii di weeru sell bi kéem naka Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul doon defee ca njaareem ngir jotaay bi moom jotaay bu am solo la ndax lu mel ni weeru koor ak Serigne Touba ni mu ko fanke woon ak ni mu ko daan dundee Cheikh Mamadou Mountakha ko jotaay bu mel nii ñu teewee ko loolu moom tawféex la ak cant koo xam ni ñi ngi ko koy jagleel lépp di ko delloo rek. loolu rek moo ñu tax a bu ñu bàyyee bu bàyyee sunu liggéey sunu lépp jógee Thiès ba fii ngir jëmmi sëñ bi rek ak dundal sunu xol moom moo ñu fi indi di santaat bu baax rek. ñi lee rafetlu démb njàng mu sell mi nga xamante ne nii kuréel bu cees bi daal di na ko amal loolee ñoom ñi lee ñu ànd ci ak mbégte. waaw njàng mi neex lool neex lool di ñaanal si man ndax mu yàgg fi lool te wér ba li mu fas yéene liggéey suñu Tuubaa suñu borom may ko kattan mu ko ànd ko ñun taalibe yëpp njàng mi di ko di ko di ko rafetlu lool waaw te it neex na lool di ñaan suñu borom may ñu ni ñu ko commencé ni ñu eggali ko noonu rek ak itam yéen itam waa kuréel Hizbut Tarqiyyah njàng mu am solo moo xamante se ni andi nañ ko ci pas-pas ak euh, dogu goo xamante si nii daal ak sant ak sant rek lañ ci mën a goo xam ne amul ab amul fu yam amul fu mu tàmbalee lépp nag ñu delloo ko sëñ Tuubaa rek taalibe bi sax moom fësal ni sëriñ Muntaxa ak doxalinam saay su mu leen di yéem loolee ñu war di roy ci sëriñ bi gannaaw ba mu leen doyee bis bu set rek dañu gis beneen xar kanam bu gën a bees ci jëmmam ci doxaliinam ci lépp daal ci lépp daal. dañ ko ñaanal lool démb nekkoon juróom benneelu fanu koor ñu ko doon dundal fële ci résidence Cheikhoul Khadim gannaaw ba nga xamante ne nii kuréel bu cees moo fa amal njàng mu am solo loolee nag doomu aadama yu bëri jóge ci bërëb yu fasantikoo daal di ñëw teewee ko moo di kilifa diine ba ci kilifa aada ñëpp wane seen mbégte ci li nga xamante ne nii Serigne Mountakha amal na ko muy ñaareelu édition bi gannaaw ba mu ko réitéré Serigne bi daan ko def ca njaareem saay su weeru koor jotoon